si ñi suñ mbàkki joxoon sëñ bi la sëñ bi tàngal ataaya noonu mu daa def nga xam ne bu bu suukaree day liddiku sëñ bi daal joxoñ suukar si daal ne eh, lii de képp ku koy jëfandikoo te doon naan lu weex lu mel ne seññ ak mu di ko lugg wala ngay ñaq ba muy génn wala boog ngay jëfandikoo lay dur mu di ko génne xal seen nga tëdd ba ne laaj bañ jël seet dégg nga wax lii de waaw muy suukar mi moom la joxoñ lii de ku koy jëfandikoo ku ne te doo naan lu weex lu mel ne senjeng kon loolu mooy lépp lu weex lu mel ne senjeng ak bokkam carag ak lu mel ne senjeng te loolu yi néew da koy din da koy lugg doo jëfandikoo lu mel ne senjeng mu di ko lugg wala ngay ñaq ba muy génn wala ba ngay jëfandikoo lay door mu di ko génne xal seen ngaa tëdd ba ne làcc bañ jëla seet baat booba nag jabeet ak bokki yabeet ak yëpp lépp luy indi tawati suukar loolu dugg na ci wax jooju mu daal di wax nag ana nuñ koy jëfandikoo weeru arab woo dugg weer wu dugg ca topp noonu la ko tudde suñ weer yi àllarba ji alxames ji ci jëkk wala altine ji jëkk ci weeroo guddi ga ko jiitu da ngay fàggu ci lay dóor ca xob yi lu na mat am naan fàggu ci ay xob yi lu am naan tànn doom yi ak bant yi ba mu set nga def ko ci peere te wutul ko ubbeer peere mooy super noonu la ko daa waxe te wutul ko ubbeer nee na nga wut danga ko daqaar def ca boo ko amul nga wutale ko lëf ci basaab nee na nga raxas ko boole leen raxas bañ set nga wut lu fees sa biir ci mu naan. Mhm. baxal ko ba mu mbax nga sotti ko ci biir peere ba te ub ko. Mhm. ub ci ubeer ba. Mhm. nee na bàyyi ko mu fanaan ba fajar. boo jigee ci jàkka ja. nga digg xent ko. ba tàggale ndox maag xob ya. ba mu na nga fam ndox moomu jàng faatiha ak fàllax ak naa si tifli ci naan ko ba mu jeex ba si biir fees. nee bu si biir feesee nga jég na dox jéegu yu baree bari. ba yëg na dox nga. te bu dee ba naaj. nga lekk lu mel ne laax tam ànd ak soow piir daal lii de ku koy def boo ko yëgee boo ko yëgul jariñ na la te docteur du am ci yow aw yoon loolu nag sëñ baaxeer mi mu ko joxoon ak sëñ Mudu Xari Fañang seen doom Moustapha Baaxeer moom ma ko nettalee nii te fàttiwu ma ko nii la ko sëñ bi